alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bifurud wa sunan sakartuhu lianna qad saafani liwatani bihi nafa ma anfani asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu leen di nuyuwaat comme ni ñu leen nuyoo woon ba léegi nii ànd ak yéen ci liggéey bi nga xam ne moom lañ ànd ak kilifa nga xam ni moom la Sëriñ Tuubaa Sëriñ Muntaxa Mbàkke joxoon liggéey bi tàmbalee ci Sëriñ am Mboodu Mbenda nga xam ne mooy bopp liggéey bi ñu àndan ci yéen tey jii Saxum Touba TV ñëwoon fi ànd ak ñi nga xam ne mooy waa Aya Foré euh, ñu taxaw tey ak seen chef euh, ci liggéey bi moom tamit mu bëggoon ñu cee jottali ay kàddu sëñ Babacar Mbuub ñoo ngi lay ziar bu baax a baax. ziar bu daa mel ni fekk nañ leen ci liggéey bi tamit ñu ngeen doon ñoo xam ne am ngeen ab cër ci liggéey bi ñu jox leen ko ngir euh, garab yi. jërëjëf sëñ bi ñu ngi nuyu say euh, mbokk euh, sàkku euh, Touba di leen ñaanal jàmm di ko di ko di ko ñaanal mboolem jullit di ko ñaanal mboolem taalibe waaw ren liggéey bi vraiment niñ ko doxalee dafa dafa am solo. Euh, parce que ci càkkuteef xalif euh, général des Mourides moo mu jël liggéey bi teg ko ci loxo euh, Baye Fall yi sëñ Dame Fall boobu ba léegi daf ñu ci jiital loolu nag ñu ñu ci ñu ci ñu ci sant yàlla bu baax liggéey bi coordonnateur bi mooy colonel Ndëri Diaw moo xamante ne moom mooy jiite Eaux et bu Diourbel yëpp. moom tamit mu jëlee ndigali ci euh, euh, colonel major Beydi Ba euh, tey ki nga xamante ne mooy adjoint directeur moo ko fi moo ko fi teewal di colonel John mais maître deux bi capitaine Mohamed Diop la moo xamante ne moom moo yor lépp luy département Mbacké ci noonu liggéey bi dañ ko xaaj ay pàcc donc ay équipe six équipes donc man maay groupe deux maa ma maa yor li nga xamante ne moo dalee université Euh, jëm euh, rond-point Belel euh, ci noonu liggéey bi comme ni nga ko waxee lépp loo xamante ne ni màcc na ci xam-xam ñun ñoo ko yor moo waral dañuy buñ bu gaay jiitoo di jëmbat dañuy topp seen ginnaaw lépp loo xamante ne ni niñ ko jëmbatee baaxul wala dañoo fàtte di mbuus mi wala dañ ko war a jubbanti ak yooyu ñu topp ci ànd ci koog ànd koog ñoom bu loolu lañ loolu lañ fi nekkee waaw. bu ñu bëggoon a tey garab yi nan ni comme nan lañ ko war a mën a saytoo bu ginnaaw bi ngeen jëmbatee ba noppi Euh, waaw garab moom jëmbat ko yomb na waaye saytu bi ci boppam moo ci ëpp moo ci gën a am solo euh, mooy lu ñuy wax entretien li ci jiitu mooy protection donc euh, bi ñuy bi ñuy conseillé sëñ daam sëñ dañ ko waxoon ne il faut garab yi am ay grillage donc grillage yi ñu ngi koy defar ñu ngi topp garab bu ñu jëmbat dañ ko war a def grillage léegi nag li ci gën comme dañoo xam ne Touba moom ndox mi dafa xaw a euh, sa wex xorom ndox mu neex arrosé ko moo gën looloo waral garab bi ñu jëmbat saa yu toogee ñaari fan tawul war nañ ci subaak ngoon ñu def ci ndox léegi nag liñ waxoon euh, liñ conseillé woon sëñ bi mooy garab gi buntu kër gu mu nekk ñu denk ko kër yooyu nga xamante ne ñoom ñoo koy féetewoo saa yu ñu xëyee def ci ndox du tere it citerne yi dina fi bugg di jaar de temps en di di may garab yi di di may di may garab yi ndox laaj boobu lañ bëggoon a laaj ci te tontu nga ko dugalaale nga ci sa ci sa biir wax mooy borom borom buntu kër yi ak borom place yi nga xam ne ñoom garab yi daa nekk seen wet ñoom ana ñoom nan lañ ko war a kii waaw moom il faut ñu xam il faut ñu xam ne euh, garab sa buntu kër yow lay gën a jëriñ balaa moo jëriñ keneen te garab yi ñu tànn dafa am solo garabu xay day doon garab goo xamante ne dafa jëmu te dafa doon garab gu mën a gu mën a gu mën a yàgg maanaam c'est des espèces centenaires mën na mën na dund ay téeméeri at donc loolu dafa dafa am solo mënoon nañ fi def garab yoo xamante ne nii mën na mën na gaaw a màgg mais gu euh, fan yi du du demee noonu moo waral bi ñu fi dëjatee niim ñu xalaat ne dañ fi waroon def ay garab yu am am am am am am passé ñu ne nañ ko jëmmali ak ay ay xay loolu nag ci tànneef sëñ mun taxaala moom moo ko moom moo moom moo tànn moom moo sàkku dañu def fi ay xay waaw jërëjëf. jërëjëf lan ngay tàggatoo di leen di leen di leen sant di leen gërëm di leen wax ne eh, euh, ñun. yéen lañ fi nekkal service eaux et loolu lañ fi nekkal suñ première mission mooy la sensibilisation ak appui technique appui conseil maanaam jàppale nit ñi ci seen wàllu garab ak seen wàllu dëkkuwaay ak seen wàllu dëkkin garab dafa am njëriñ ku ne xam na ne jamono ñu toll nii li ñuy wax changement climatique tàngoor bi ñuy sentir nii ñàkkim garab ñàkkum garab moo ko wa moo ko moo ko waral boo xoolee fi may wax ni période euh, tàngoor bi moo gën a gudd période sedd bi li muy sedd léegi bëriwul te loolu yëpp ñàkkum garab moo moo moo ko waral nañ góorgóorlu fonkaat garab garab am na njëriñ ñu ngi leen sant alkarim silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan sakartuhu lianu xad saxani liwatani bi nafa